ngir am xol bu set nak fokk ñu fóot ko fóot ko ci ay tak tak ndax sun borom dafa wax yonte bi ci alquran ko ya ayyuhal mudassir qum fa andir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir borom xam-xam tafsir yep li ñu wax ne siyaabaka jooju xal bu lañ jublu moy setal sa xol kon xol mu ne su ko ñaka setal waaye nag mu am ay yoon yu ñuy jaar ngir setal xol ba ci jëkk mooy bari looy tuub tuub di dellu ci yàlla tuub bu ñu ko waxee mooy tuub dellu lay tekk Sëriñ Tuubaa daan def yi saa mu dajale mbooloo julleeg ñoom ñaari rakka ni leen na ngeen ci yéene tub kon tuub bu ñu ko waxee dellu ci yàlla lay tekki mën naa doon julli ñaari rakka mën naa doon jàng alxuraan mën naa doon jàng xasida mën naa doon toog di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye tuub dellu ci yàlla rek lay teg kon bari looy dellu ci yàlla bokk na ci li ñuy fóote ab xol bu jàllee bari looy jéggalu yàlla istixfaar mooy sàkku yàlla mu faral la bàkkaar yi nga def bokk na ci li ñuy fóote ab xol ba tey boo jekkee ba guddi doonte da ngay jàpp julli ñaari rakkaas loolu bokk na ci li seddal ab xol yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni dafa wax ni nit ki bu nelawee seytaane day ñëw ci aw loosam fas ci ñetti pas yoo xam ne pas-pas bu ci ne da cee tefli ni ko nam alayka laylun tawilun guddi gi yàgg na nelawal ba mu ñetti pas-pas mun nag nit ki bu yeewoo tudd yàlla benn pas bi day fecc ko bu demee jàpp bi benn pas-pasu bi fecc ko bu kàbbaree julli ñaar rakkaa nag ñetti pas-pas yépp fecc ko bu xëyee day xëyee xol bu neex akuk cawarte daal di waaye bu ko defut nag pas-pas yooyu seetaane façon ci moom tax na bu yeewoo tuddul yàlla benn benn lu xëccaat mbàjjam rek daal di continuer di nelaw bu xëyee ak tàyyeel lay xëyaale ak naqari dara te loolu ku ko xool gis ko ku ko xool ci sa bopp da nga koy da nga koy sabab yonent yonent bi sallallahu moo ko wax waaye moom mir bi ngay jàkkaarloo ñu ne boo koy làmb rek di ko daj waaw nit ki bu yeewoo ci guddi gi at bi mu jëkk yow te dañuy wax ni nelaw moom lay faratee nelaw mooy bi nga gëmee ko nga nelaw ba jékki-jékki yeewu te kenn yeewu la loolu mooy farata nelaw mooy li nga xamante ne boo ko defitoon mu lor la la ca desaat lépp bakkan la bi nga yeewoo te kenn yeewul la rek boo xëccaatee sa mbàjj la bakkan dafa teg des léegi waaye farata nelaw jaam yan tamit nag saa bu nit ki yeewoo tudd yàlla benn pas bi day fecc ko bu jàppee pas-pasu bi fecc ko bu julee ñaari raakaa nag pas-pas yëpp day fecc ko bu xëyee ak cawarte ak u neex deret lay xëy waaye bu ko defut bu xëyee ak taayal ak u naqar deret lay xëy kon jóg ci guddi gi julli doon ci ñaar raakaar bokk na ci liy fóot ab xol bari looy julli ci werante bi noonu bari looy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci liy fóot ab xol Sëriñ Tuubaa ki bu bëggee wérug yaram ak wérug xol nu muy def ngir mën ko am mu ni leen wér gi yaram moom di xiif xiif bu digg doomu bañ a xiif ba ëpp bañ a regg boo ko defee da nga am wér yaram waaye wérug xol nag bari looy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo koy maye kon bari loy jël ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam hol may xol bu wër bu set wecc naka nonu jang alquran di setantal bokku na ci li maye wëru xol naka nonu bari loy tuddu yaa sikar di sikar sikar su bari yoy yëpp ni juroom benn mbir la yoo xamantene ne daa bokk ci li ñuy fóote ab xol ngir mu set benn benn bëgg-bëgg wala benn yitte wala benn xemmanteef wala lenn ju benn jublu pour Sëñ Tuubaa